Yves gannaaw bañ la nuyoo di la dalal ci réew mi di la jaajëfal bu baax a baax di fàttali ne mooy euh, coordonnateur regroupement diplômé euh, euh, sans emploi fii ci Sénégal waxtaanee li nga xam ne mooy kàddu yi njiitu réew mi yëkkati bu yàggul ne dinañu orienté waat lépp li nga xam ne yëkkati nañ ko ci wàllum koppar jëm ci xëyu ndaw mi te jinoo jàngatee boobule dogal. waaw li may def mooy. rafetlu dogal boobu. waaye maa ngi doon ñaan sax nga may ma jaalee waa Sénégal. Mhm. ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen i doom. ak ñi nga xamante ne am nañ ay gaañu gaañu. ñu ngi leen di ñaan ñu ñu tane jàmm ba dellu seen yitte. Mhm. waaw concernant li président wax. waaw loolu dañ koy rafetlu parce que ñu loolu lañ ma a wax chaque jour lii ma a mooy ndaw yi kenn boolewu leen ci politique publique maanaam lépp li nga xamante ne day jógee ci état bi di war a jëm ci population bi dañoo lu ndaw ñi te Sénégal soo jëlee fukki nit yoo jël juróom-ñaar ñëpp ay ndaw lañ mais ndaw yooyu su fekkee dañ leen beddi su fekkee ndaw yi boolewuñ leen ci lenn day indi problème parce que ay weer ci ginnaaw wala lu ma tax maa ngi wax ne ndaw yi Sénégal yi kenn toppatoo wul kenn liggéeyu leen kenn faalewu ma. Mhm. ñu dem a dem ba mbëkk mi am ñu génnaat tamit artu wax kenn dégluwuñu ba tey jii nii lii mujj am am. gannaaw lu am am na ba pare nag. Mhm. te ci dynamique wut solution ci dynamique defar jubbanti lañ nekk. ci loolu la tax nag ñun lu lu président wax dañ koy mën a rafetlu te di toog di déglu di xaar loolu lu muy joxe ak luñ ciy wax ak lépp loo xam ne ñun war nañ ko cee mën a jëf parce que ñun am na loo xam ne xam nañ ko ci ñu ngi toog di xaar di déglu autorités yi te yaakaar nañ ni bi yoon moom li tubaab bi naan ça sera la bonne parce que dañuy bañ rek. liñ ñu fi jotoon dal yëpp a dal ñu wax ay mbir ñu toog di xaar loolu après duñ ko gis mais yaakaar nañ ni ak situation bi ni mu demee ak ni président waxee bi yoon am nañ ci njort bu rafet daal par rapport ak li mu wax ni concernant les jeunes. tey jii ndax dafa am ay piste de solution yi ngeen xam ne da ngeen ko proposé euh, ngir ñu gën a orienté euh, koppar gi ci xëyu ndaw yi. waaw ñun piste de solution mosuñu ko ñàkk a euh, ñàkk am. soo demoon léegi ci internet soo bindee ne ñun solution yi yi nga xam ne joxe woon nañ ko. Mhm. loolu depuis mois de juillet daaw jox na ay solution ñun si joxe solution yi dëkk. mais tamit nag soo dee jox solution tam da ngay jox solution. ko xam ndax bokk na ci nga xam ne tey jii ñu ngi koy prôné ci Sénégal ndax ndaw yi euh, gën cee wutali. waaw soxna solution yi dafa bëri. Hmm. ba entrepreneuriat rek. parce que aduna moom moo demee noonu ku ci nekk rek dafa am pour féete kii war a kii daa war a nekk baykat kii nekk nappkat. kii nekk euh, dawalkatu oto kii nekk na leneen ki nekk leneen kii nekk leneen ba ba mu yegg si entrepreneuriat. Mm. mais entrepreneuriat boo dafa bëri li ci sooxe. parce que booba léegi ñu ngi wax ay milliards dugg nañ te kenn gisul milliards yi kenn xamul milliards yi fa mu jaar foo dem ñuy naan jeunes yi dañuy naan gisuñu financement te tamit beneen problème bi am ci recrutement par exemple fonction publique recrutement nga xam ne état liggéey état bi joxe moom moo am moo am ci entrepreneuriat bi da ngay dem pour ñu financer la da ngay ànd ak ñoom soo àndul ak ñoom bokkoo ñoom dëkkoo ak ñoom. nekkoo seen militant jege woo leen du la financé loolu moo am. li ngay wax moom graaw na di dafa mel ni da ngay eh, joxoñ baaraam tuuma programme yi nga fi teg ngir ñu jàppale ndaw yi man man ma leen tuuma hmm. moo dëggal li ñu wax population bi wax ko parce que lu juba lu ñuy jubbante ngay ñoom ñoo ko wax de man waxuma ko de ñoom ñoo dañuy dañuy jubbante léegi nag luy jubbante ke daa fekk jubutoon lu jub kenn du ko jubbante loolu dafa am xam nga Sénégal day dëkk boo xam ne su dëgg amee kenn du ko nangu c'est pas parce que. critiqué nañ la wala def na erreur erreur ñàkk parce que ay nit lañ nit mooy juum mais soo juumee da nga war nangu juum ñu nga mais nag su fekkee tamit tamit da ngay di ngay juum ci loo xam ne ni yëfi jàmbur la jàmbur jo da ko ca boole parce que mënuñu ne jeune yi la ñuy defal te duñu boole ci jeunes yi jeunes yi soo xoolee ci gouvernement bi ñaata jeunes ñoo ko nekk soo demee ci direction yi ñaata jeune ñoo ci nekk soo xoolee ci instance yi ñaata que foofu noonu su ay jeunes nekkoon li ñun tubaab bi ne le courant passe parce que jeune jeune moo mën a wax ak moom su jeune su amee problème su jeune ñëwee taxaw wax moom ko mën a dégg parce que loolu dafa am solo mais su fekkee jeune su amee problème màgget moo xamante ne euh, euh, depuis mille neuf cent soixante rek sa moromu maam la ñun suñu moromu maam mënuñu xam suñu problème jamono dafa changé. kon yéen lu ngeen lu ngeen bëgg jamono ji ñu génnee bépp programme bi nga xam ne teg nañ ko ngir jàppale ndaw yi ci wàllum xëy. waaw dañoo bëgg ñu teg ay programme programme yoo xam ne yu concret yoo xam ne. wuute gi fi nekkoon. waaw loolu non waxumuñ sañu tëj ko parce que tamit tëj ce serait trop dur. wuute laa wax yi wuute ak yi fi nekkoon. waaw waaw non non waaw mën nañ koo def benn programme boo xam ne su dee ay entrepreneuriat ñu def ko benn programme boo xam ne ni képp ku soxla financement foofu ngay dem mais amul bintu yor Demba yor programme am Samba yor programme te kenn du xam léegi fu yëf yi mujj du am transparence du am dara te d'ailleurs ñu ngi laaj ñu auditeurs yooyu noonu ñu jox leen ay financement parce que milliards yooyu noonu kenn mënu mënut a nax saay dëkk bi di tàkk ndaw yi génn ci mbedd mi di taal ay pono di xeex bay bakkan di jurot parce que xaalis boobu noonu su ko ndaw yi jotoon amul kenn koo xam ne di nga jot financement wala da nga yor xaalis wala am projet boobu naan da ngay génn di manifester ba di bi di jaxasoo parce que lii xam nii dafa ñaaw rafetalul ci image Sénégal ñun ñii xam ne jot nañoo génn réew mi dem bitim réew ñun fu ñu dem dañuy tiisalu ak a puugare naan suñu dëkk dëkku démocratie suñu dëkk dafa rafet booba léegi moo taxit fan yii yëpp ñun ñu ngi dégg man mii ñu bëri ñu ñu ngi may woo di laaj dëkk bi mu demee ba dama ci sax xaw am rus parce que nag maa doon tiitoor naan Sénégal bokkut ak yéen seen pays réew démocratie réew jàmm la réew teraanga la donc yooyu noonu c'est pas c'est pas bien pour l'image du Sénégal parce que mën na écorner image Sénégal mën na tax tamit investisseur di fi daw te dégg dégg ngeen keroog euh, euh, ancien premier ministre nee na déjà perte nañ deux points perte nañ deux deux points euh, concernant kii investissement yi. Mhm. maanaam tey suñu doon suñu suñu doon lebalee à cinq pour cent léegi dañ à sept pour cent kon loolu tamit c'est c'est c'est pas bien pour l'image du Sénégal c'est pas bien baaxul ci climat économie parce que économie tamit moo yor réew. moo tax ñuy laaj état du Sénégal mu xoolaat politique de jeunesse yi mu impliqué jeunes yi mu déglu jeunes yi boole jeunes yi yi nga xam ne dañ leen nekk ci administration publique yi dañ leen ci jëlee nit mën a liggéey ba jël retraite ñu lànk ne du génn ñu kon ne ko fay alors que ndaw yaa ngi fi toog jàng am seen liggéey sa mënuñu liggéey mais ñu dimbale ñi nga xam ne dañu nekk secteur informel marchand ambulant yi nappkat yi apprenti oto yi ñooñu ñëpp mécaniciens yi menuisiers yi ñooñu ñëpp li ci ëpp ay jeunes la c'est la jeunes sénégalais yëpp dañ ci war a yéeg ci politique bi képp kuy sénégalais war nga sentir état sa wet loolu mooy yoon parce que loolu mooy wàññi frustration yàgg naa leen ko wax ndax loo xam ne yaakaaram dafa tas amatul yaakaar ñu beddi ko boole wuñ ko ko ci leen mais mu révolté wu yomb wax naa leen ko fii mhm. gon nii ñu am ba songo géej fit woowu suñ ko ci plateau yi fu ne wax ko mais bu may wax kenn déglu ma mhm. ma Sénégal tamit dafa métti da artu artu ba sonn kenn du la léegi suñu yëpp ne këtt ni yoon ñu commencé dugg na fii génn fii te loolu noonu ñun gisoon nañ on avait vu venir gis nañ xamoon nañ lii fi lay mujj. justement Yves Zale ci yaakaar googu ngay wax ndax am ngeen yaakaar tey trois cent cinquante milliards yi ñu wax ne euh, danañ ko mobiliser ngir ñu dugal ko ci euh, financement ndaw yeeg euh, soxna yi ndax am ngeen yaakaar ne dina wàññi lii di chômage bi ci mim réew wala mu régler ko définitivement. waaw waaw wàññi gi am nañ ci yaakaar waaye réglé ko nag moom loolu réglé moom wax dëgg man mënu ma ko wax réglé parce que jàpp naa loolu mën a réglé problème chômage ndax la mais nag quant nag moom mën na ko dana am lu mu wàññi te ñun suñu sañoon loolu sax président yokkaat loolu moom yokkaat loolu parce que bëri na fi eh, eh, ay bërëb yoo xam ne ñu ngi fay def ay milliards amul benn njëriñ war nañ ko mën a tas parce que amul benn benn benn njëriñ Sénégal te dafa am leneen tam am Sénégal yoo xam ne état fayul salaire fayut location fayut dara li ñu koy woowee profession libérale mais ay nit dañ koo téye tëj ko jeunes yi mënuñu jot mu ngi mel ni huissier mu ngi mel ni notaire mu ngi mel ni avocat ay nit ñoo fa ne di def lu leen neex état du Sénégal di leen seetaan en complicité avec le ministre de la justice mi nga xam ne am na lu lu ne wang li mu war a wax moom mu ngi ni jël na arrêté jox onze personnes yoo xam ne defuñ concours defuñ dara ci yaama neex la ne ngi war a wax ci loolu waxul ci loolu wax ci loo xam ne ni kenn santu ko ko par di frustrer moom lañ fal la jël ay responsabilité dem te bàyyi ñi nga xam ne da leen a jël jox leen ay responsabilité jox leen ay budget nekk fi leen di ko yàqal di ko indil problème li tubaab bi nag ils allument yoo xam ne après su coow li bëree ci président lay dal parce que booba léegi gis nañ bu coow li amee ku ci nekk da ngaa làqatu kenn déggu kenn waxul kenn jàppalul président président kon war naa xam ni bëri na fi ñoo xamante ne ils sont à l'origine des problèmes que rencontre la jeunesse il faut dégg président mu jël ci ay ay mu mu mu jël ci ay responsabilité par rapport à ça parce que mënuñu concevoir ay autorité ñu ñu ñu war a dimbale nit ñi wala gindi nit ñi mais ñu nekk di poser saa ñuy poser acte acte bi acte de frustration lay doon suñu waxee nit ñi gën a mer coow gën a jóg parce que président nag loolu nag da cee war a jóg da cee war a jóg parce que Sénégal mënuñu considérer nit ñoo xam te ne jeexal nañ bu yàgg retraité nañ magget nañ seen adduna bi yëpp dox nañ ko ñu nekk fii di di yàqal ndaw yi wala di def loo xa te ne moom mooy taal dëkk bi parce que injustice bu bëri bi moo tax jeunes yi révolté wu te loolu baaxul ci réew ndaw dañ koy jàngal former ko accompagner ko finance ko jox ko mu koy responsabiliser ko parce que jeune bu ñuy responsabiliser wu day frustré wu. te yow jàpp nga ne loolu yëpp amu fi. waaw loolu amu fi parce que président ñi ko war a dimbale laa la wax dimbale wuñ ko moom président war na xam xam na loolu sax semaine bi ñu passé wala ñaari semaine yi ñu paase war naa xam nag. ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñan ñooy mbokkam ak ñan ñoo nekkoon mbokkam ñi ko war a dimbale dëgg dimbale wuñu moo tax daa war a jël ay responsabilité par rapport à ça mhm. ñun ay Sénégal su Sénégal tàkkee ñun ñëpp ay perte man mii rek man am naa lu ma ñàkk manifestation yi man mii sax mën naa ne impacté la parce que man sama moto dañ koo lakk donc qui veut dire que loolu pertement la léegi li ma li ma perte ni kan moom ma koy fay ministre de l'intérieur moom moo koy fay kan moo ma koy fay wala koy fay kon qui veut dire que loolu lépp lu ñu lu ñu lu ñu la dëkk bii dañ ko war a organiser waat organisation dëkk bi nag suñ ko bëggee def dañ ciy boole waa dëkk bi. Mhm. tey ñuy ñuy euh, wax euh, conseil national pour des jeunes nga jàpp ne euh, lan mooy pertinence su boobule ndaje. waaw ndaje bi de ko waxee baax na nañ ko waxee baax na lenn naa laa am lu ma lu ma ci wax mooy mënoo ne conseil national pour les jeunes alors que les wala nga mën na ne conseil national pour les jeunes. su nekkee fukki nit nga jël juróom-ñett yi wala juróom-ñeent ñëpp ñu doon ñu doon ay mag wala ay màgget conseil national des jeune c'est pour les jeunes nañ fa def ndaw yi di leen déglu loolu laay wax mais buñ jël tamit def ko yëfi politique jël jël ay politiciens dugal ko fa mu indiwaat meneen problème yi li fi daan am amaat fi comme dañoo nekk ci ci ci ci soppi nañ soppi lépp conseil national pour l'insertion des jeunes ay jeune ñoo fa war a ne ay jeunes ñoo fa ëpp mag ñi amuñu fa place parce que jotaayu gone yoo te gis mag am na fa solo. waaye nag duñ ko jël jël ay mu casé fa ay mag ñu feesal ko jël jeunes yi ba leen ci biti kon boobaa suñ fa demee seen bopp lañ fay wax luñ fa waxal jeunes yi. Mhm. loolu loolu laa am ci wax ci conseil national pour les jeunes te di rafetlu tamit le fait que président mu wax conseil des ministres ne euh, bëgg na waxtaan ak ndaw yi bëgg na recevoir ndaw yi waxtaan ak ñoom loolu lu ñuy rafetlu la. ñun ñun en ñun li ñu di xaar di déglu. Yves Zalé sans emploi ñu lay jaajëfal bu baax a baax.